asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki Sénégal bokki Touba ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam tey jii nag ñu ñëwoon fii ci euh, quartier généralu sëriñ Modou moom Serigne Bara Doli ànd ak ñi nga xam ne ñoom laa bokkal liggéey bi muy sama gauche di Mouhamed Silla sama droit di Abdoulahad Touré di ay jeunes talents yu bokk ci APR ñëwoon fi rek ngir leeral tuuti askanu Sénégal ak askanu Touba. loo xam ne nii euh, dafa jaaruñu leeral ko ñépp te mooy dëkk bii du Touba day dëkk boo xam dañ ko war a wormaal te worma ji nag leer na ñëpp képp kuy ab taalibe képp kuy tuubaa ak waa Touba worma ji war na laa leer sëriñ bi dafa tere woon ku fi yëngatu ku fi taf ay photo ku fi wax ku fi coow ku fi dajale mbooloo ku fi sarxolle yooyu yëpp sëriñ bi da ko tere woon ñi fi jiitu woon nag ku mel ni président Macky Sall mi nga xam ne moom lañu àndal ñëw na fi ak i tegginam akub yaram ñëw seet si sëriñam yaakaaram tàllal koy loxoom ñaanal ko mu dem ba Mbàkke Bawal fa nga xam ni terewuñ ko fa mu def ko fa Madika ña ngit noonu sonk it noonu waaye mu mel ni dafa am ku fi ñëw tey kooku nag ñu seetlu ni dafa xotti xormay Touba ndax kenn ku ne xam na ni Touba kenn waru fee dajaloo di politique ak a tafi foto ak a yuuxoo ak a tappaase muy ay tappaas yoo xam ne nii ñoom tàmbali nañ ko loolu nag commençant par des ojo ak ay vocal yoo xam ne nii mu ngi daw te ñoom ñoo ñu ñoo ko indi muy loo xam ne nii tamit teguwul fenn nag ndax ñun ci dëkk bi lañu dëkk yoonu murid wi kenn ku nekk dugg na ci waaw kenn ku nekk dugg na ci fekk Sëriñ Tuubaa ndax daw làqu la bu ñu amee kenn ku ñuy ndamoo koy am murid kon ñi jiitu woon la ñuy ndamoo gis nañ fi ñu bare bare bare ñu duggoon ci yoon wi jàlla bi bii muy mbub mii nga xam ne moom lañ solal ma di keñan euh, Idriss Seck ëpp na ko bu dee xat fàkk kablaajum waxoon Sëñ Fallu 1945 la fi toogoon waxoon ko murit yëpp di ko dégg xat fakk kabla dindi naa jéng yi xat sa fad la andi naa ngëneel ñëw na toog te dootu dem faddur walla lor dem na te dootu ñëwati ba ko Sëñ Fallu waxee la amoon la amoon njariñ te booba lañ ko déggoon ñun keneen mënuñ cee waaraat njiitul réew la ñuy sàkku moom la ñuy xool kii def na fi juróom-ñaari at sukkandiku na ci li mu fi defoon Idriss Seck nekkoon na fi lu dul jiite réew mi jiite woon na ko aw dàll képp mosu ko indi Touba te ñëpp man ngeen ma ci seere nekkoon na fi nekkoon na lu nekk rek doonoon na ko fi cin nag bu naree neex su baxee day xeeñ te baxoon na te xëy ñu dara kon bu ñu jékki-jékki du ko jéem a jabaluisal nun doonu ko nangu man nag ci dëkk bi laa dëkk maam Serigne Mbacke laa tudd yore mouvement bu ñuy wax mos dolli dëkk bi ñu bari xam nañ ko aussi dama ànd ak ñii nga xam ni ñoo bokk luñ bëgg donte maa ngi ñëw ci Modou Mbacke moom Serigne Bara Doli kenn rek la ñuy wutal ndam kenn la ñuy sàkkul ndam muy président Macky Sall soxlawuñ soxla wuñ maire wenn carte wi ñu ko wenn carte woowu yi kon ñun ñëpp ñoo bokk fu ñu jëm moo tax ma ñëw seet si ko dinaa dem ci soxla maam xëri dinaa dem ci Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma dinaa dem ci Abdou Lahad Ka dinaa dem ci Abdou Lahad Sadaka ñu dajaloo ñun ñëpp nag wane ni suñu mbër muy Macky Sall lim fi def Idriss Seck mënu ko mënu ko tey mënu ko ëllëg ñii nga xam ne ñoo daw wuti ko nag dañoo xamut rek dañoo xamut loolu nag duma ci yedd kenn kenn ku nekk am na droit samp sa mbër ni man na waaye li ma xam mooy ñun waa Touba li ëpp ci ñun te jëm fenn te am la tey nit ñu ñu xam ci dëkk bi président Macky Sall xam nañ ni ab taalibe la mm. ndax bu fekkente ni dañ koy solal mbubb mu ak murit maa ngi giñ ci yàlla kii moo ko jiitu ci yoonu murit ndax Sëñ Mbàkke Soxna Lo njëkk a jox boppam mm. kii ci catul sii di Maxtaar ca fin ba lay doog a ñëw di dooru murit bërki démb la fi ñëw mën a raw ñëpp loolu mënta nekk duñ ko seetaan tey kii defal na Sëriñ Tuubaa lépp te mësu koo wax lu mu defut kenn mës ta dégg mu tooñ am murit fii ci dëkk bi ko ko xam na ko wax kii nag bàyyu kii di Modou Bari Dolly keroog ba nga xamee ni wax na Mbàkke ca Assemblée daf ko ni fii des ko fi wax te booba Sëriñ Bara Dolly non seulement nekkoon na député mais huitième vice président assemblée la doonoon mu dindi ndombay tànkam yépp ba mu des député simple bërki dem ba la koy doog a bi Sëriñ Bara Dolly demee ci Sëriñ Murtala di wax ak suñ motulaa dafa woolu Ablaye du mu ñëw mu ne ko suñ baara doli mbokk la dëkk ci dëkk bi di mag ba noppi ànd ak yéen ma yaakaaroon bu duggee ci yéen ko wax lu leer la ma di Idriss dama ko teg ci dëkk bi wóolu ko jox ko ay poste mu yorub lanca dagg waaye lépp lu mu dagg fas naa koo ñaw wàññi gi muy wàññi suñ baara doli yëguma ko ci la ko dal di gaaw jóge fa ñëw teg ko dugal ko Sénat te loolu barki démb la kenn fàtteegu ko tey ju ñu bëgg koo jël gënal ko ci ñëpp yoonu murit ku ne dugg na fi war nañoo bàkkoo keneen ku ne Idrissa Seck lan la fi defal Sëriñ Tuubaa lu yow mii loo ko defalut ab laat wala yow mii ab laat Touré wala yéen ñi toog ah, dafa war a topp ci suñ ginnaaw topp ci ginnaaw Macky Sall te xam ne kii bu mënutoon yàlla du ko jox réew mi du moroomam nag du moroomam ndax xam nañ li tax te dinaa ko leeral sax far mu leer moom moom ñoo bokkoon nekk PDS Abdoulaye Wade joxoon na ko ay poste moom Idriss Seck ba ci yàgg mu génn dem. amoon doole dëkk ab Ablaye Wade kenn ko da xam na ni dëkk na ko 2007 keroog directeur campagne yu Ablaye Wade Macky Sall président Macky Sall mii la woon moo ko duma moo ko duma leer na ñëpp yéen Sénégal yi moom it mu ñëw nekk PD ah, ah, PDS Ablaye Wade jox ko ay poste wóolu ko lool ak jub moo tax mu jóge PDS ak jub keroog ba mu nekkee président assemblée anut si am. mu ne day woo Karim Wade ñu ne ko déedéet tegal ci suuf mu ne dama koy woo ñu ne ko da ngay démissionné mu ne du ma ci lañ tëral loi Sada Ndiaye génn ko mu dem beru ànd ak ay nitam di liggéey tëb bàyyi duma Ablaye Wade ku not gaynde not sëgg ak mëfër dàqu ñooy mu daw du soowoo ki bay Idriss Seck ñii lay gémb jéem a gémb fii lu ngeen fi andi danañ ci takk rip wasalaamaaleykum wa rahmatulah lii nag ab tàmbali rek la waaw.